délégation bu takku te am solo bàyyee ko Touba ca kanam ci njiitu mboolem jëwriñ yi ngànk liggéey bi rawatina Serigne Mame Mor mi jiite commission culturel et scientifique amal nañu tukkëb nemmeeku bu am solo ci àllarba ji ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre 2022 fii ci dara daara Hizbut Tarqiyyah ci Touba. bu ñu egsee Serigne Youssou Diop mi jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah ak mboolem ñu mu liggéey bi dalal nañu leen. mbég ñi nga xamante ne waa Hizbut Tarqiyyah yëpp am nañ ko. mbég la moo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem mbégte mi mooy sëñ Habibu Mbakke moom Cheikh Mamadul Fadal di njiital Touba ci kanam moo jël kilifa yëpp yi nga xam ne ñooy yow jiite Touba ci kanam digal leen ñu dikk fii ci daara Hizbut Tarqiyyah Touba fekk nu fi ngir bokk gi nga xam ne noo ko am di ko dundal dëgg la na am waaye moom dafa def ay jéego ngir mu gën a dëgër ngir mu gën a jëm ci kanam. amal nañu ay waxtaan yu am solo jëmale ko ci ponk yu yaatu lépp ñeel soqali dëkk bu tedd bi di Touba. délégation bi bàyyeekoo Touba ca kanam wéyal nañu tukkee nemmeeku ci biir daara Hizbut Tarqiyyah ci ay bërëb yu fasantikoo. Eh, ñu am nag mbégte bu baax a baax ci ñëw gi ndax li ko waral bari na mooy Hizbut Tarqiyyah ak Touba ca kanam dafa nekk ñaari jumtukaayu Serigne Touba. ndax liggéey bi Serigne Touba dénk ñu mën koo saytu niñ ko war a saytoo. boole ci yit nag li ñu yor di ko liggéeyee muy benn liggéey muy wàllu xam-xam wàllu assainissement ak lu ma a doon lépp ñoo ko bokk eh, kon buñ ci eh, feeñoontee eh, joxante ci loxo liggéey ci Euh, jàpp nañu ne dana gën a gaaw dana gën a yomb it ci ñun ñëpp. tukkeeb nemmeeku bu am solo bi nag gannaaw ay jataay yu am solo yoo xam ne ni waxtaane nañ ko jëm naka la ñuy boolee seen doole ngir soqali dëkk bu tedd bi di Touba jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah di Serigne Youssou Diop ci biir ay kàddoom gën naa fësal ak sóobam ak ak jaayanteem ñeel Touba ca kanam waaye nag di joxoñ ak a tegtal mbooleem ko aju ci is Hizbut Tarqiyyah ngir nag ñu tegu ci yoon woowulee fàttewu ñu benn yoon naal ay xaatim yoo xam ne ni fas nañ ko yéenee amal ci jëmmi jamono ngir nag boole doole mën a àndandoo liggéeyal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci dëkkam bu tedd bi lee di Touba. yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.